c'est honteux. mais tu euh, as wax Mansour Faye. Mm-hmm. aujourd'hui Mohamedou Mansour Faye. Mm-hmm. Adama Faye fait Sénégal <laughs> famille des am. Mm-hmm. c'est-à-dire du du du fi na li tax bii mu gën a metti gën a ñaaw mooy c'est parce que dafa am ku tax ñu xam famille boobu. Mm-hmm. mooy c'est-à-dire suñu déggee famille fay. Mm-hmm. am na luñ defal suñu borom. Mm-hmm. am nañu jaar jaar mais Macky sàll mi doon président de la République. ak Marème fay Sall. moo tax ñu dégg leen. moo tax ñu xam leen. moo tax ñu way leen. moo tax ñu bàkk leen. motax sénégalais am ci ñom ben considération absolument donc keur keur keur Macky famille Mansour fay ma Macky Sall moo tax sénégalais yi euh, xam leen waye Mansour fay mhm. dafa ci woné jikoy garmi mhm. parce que Mansour fay sénégalais yi dañ ko togn mhm. tooñ tooñ doomam may ko jigéen waaw dañ ko togn togn domam doomam doomam jàng fi ñu war a jànge mm-hmm. mokkal fi ñu war a mokkale mm-hmm. ñëw def investissement mm-hmm. xal Sénégal yëpp génn yàq deram récemment sax am na ñu ko mu bëggoon dugalaat ci coow li benn ma génn ne leen ndax kirim la nit doon doomu ministre ndax crime la nit doon ñeesu première daam ndax crime la nit doon belle fille président de la république boobu ci waxu iñaanu Sénégal ak seen soxor soxor mais coowal Covid bi xool Covid bi rek. dañu tooñ Mansour fay mhm. loolu moo tax depuis lors je me suis dit que. Mhm. les rapports de Cour des comptes man boobu ba léegi laa ci am réserve. Mhm. parce que Mansour fay la ñu tooñ. ci mbiru ceeb bi. benn vérificateur. moo jël def vérification sur fac wa jël dat dat ceeb boo xam ne Mansour fay dafa def appel candidat appel d'offre jaarale ko yoon mu koy def vérification facturer ko ci prix actuel ñu ne surfacturation boobu Mansour def tey société civile bi mhm. ñëpp dem attaqué ko mhm. te benn vérificateur moo ko defoon mhm. moom ci boppam Dajam attaqué bind président cour des comptes pour ñu wàccee kooku te vérificateur boobu dafa waroon poser le débat ñu radier ko partout au Sénégal dama ko doon wax parce que coow boobu rek la ñu dégg ci coowu Mansour Faye beneen bi daaju Mansour Faye Cheikh Mbacké Thiam mosu ko teg bët Mansour dañ ko nommé ministre mu ne nañ ko defal appel candidature ñu wëral ko le maire mm-hmm. ñu indil ko kat mu tànn Cheikh Mbacké Thiam mm-hmm. bi mu ko tànnee Cheikh Mbacké ne ma xamante wuñ sax Mansour moo ko tànn mm-hmm. ci appel candidature mu nekk daajam muy xale bu baayam gërëm Pikine doomu Pa Mankeur Thiam xoolal loolu yëpp xamuñu ko woon ci Mansour ci bonne gouvernance ak transparence même Mansour Faye boobu si la Ousmane ko demoon pour seeti ko mu ñaanal ko njekk ci affaire u Tahibou Ndiaye keroog bi ko Ousmane Sonko di jéem a wax ci la ne ko bi ngay ñëw sama kër. Mm-hmm. daan ma ñaan njekk ci mbirum tay bu jaay. Mansour fay boobu tey sénégalais yëpp ngawti ngawteeku. ko yëkkati ko fenn ba ci Mimi Touré. yëpp mm-hmm. attaqué ko. Mansour fay génn. Mm-hmm. magam jóge jóge présidence. mu taxaw dans l'opposition. accepté nekk tête de liste. te gagné ci parcours bi mu def yëpp. ndar gii mu tekkaat tête de liste tey Mansour lu ci munti am am na ndam ba pare. am na ndam ba pare wallaay. bu ci topp mooy amul benn rapport Cour des comptes wala rab bee rapport sax dañoo war raj rajjee kële wala ñu yóbbu kooku ci yoon war hmm. toog wër nañu ba sonn wër nañu ba sonn mu taxaw ne leen du ngeen ma gis ci Cour des comptes du ngeen ma gis ci IG du ngeen ma gis ci leen ba pare assumé ñu ñu wàccee mu dem ba of nag déposé déposé te jël oto boppam personnel ànd ak dem lu tax sénégalais du ñu wane yooyu mais mais moom dong moo ko def ah kenn kenn kenn dem def rapport ak daagul daa oto presse ba pare delluwaat ndar di ànd ak nit ñi. dafa opposé nag avec dignité ak dignité taxaw biir ndar taxaw biir ndar dawul daayul taxaw. nekk Macky Sall ñàkk pouvoir mu taxaw ne ko damay investir. ci opposition taxaw. waaw Mansour Faye gor la. garmi la xolam métti na lool. gor la garmi la te benn yoon musuñu toog. Mhm. ci affaire rapport cour des comptes boobu bi mu amee. Mhm. ci laa waxoon loolu. Mhm. mu féli mu ma. Mhm. par l'intermédiaire de de de de Maodo Malik Mbaye. Mhm. xaritam man ma ma bi affaire Aliou Sall bi amé mhm. Aliou Sall def RFM matin bobu mu choqué ma parce que ñom ñaar ñëpp ku ci ne dafa am cër ci man. Aliou Sall sëñ Abdal Amin motax ma bind leen ñom ñaar ñëpp. di leen ñaan wax jooju ñu tek ko suuf Mansour ma ñaan ko ne ko su ma tontu man Aliou Sall de ma bind ko message ne ko suma ma waxit Aliou Sall ngeen tek ko ci suuf mu dégg sama kàddu mm-hmm. loolu paase mm-hmm. rakkam mm-hmm. Adama Faye dañ convocation deuxième convocation brigade recherche en pleine émission ñu wax ma ko fële fekk maa ngi seen TV ma ne leen ah Adama Faye dañoo bokk sëñ Babacar te gis naa ko muy ñëw buleel gis naa ko muy ñëw tool maa ngi mm. koy ñaanal waaye yoon nag ñëpp la war a woo parce que mm. man ni Ousmane Sonko ko defoon laay bañ désobéissance civile mm. bañ a respecter institution pour man yool ku mu woo da ngaa war a wuyu ma leen su demee bu amee ay preuve mu teg ko sur la table mais comme ñoo bokk maa ngi koy ñaanal nangam mais gis nga loolu ma waxoon c'est parce que période bi ma koy wax damaa jàppoon ne Adama fay ku am kilifa la dëgg la damaa jàppoon ni Adama fay garmi la. maa damaa jàppoon ni Adama fay gor la. damaa jàppoon ni aadama fay sa famille xam na luy sacralité famille. du ci lenn waaye démb bi ma dégloo aadama fay mhm. ah Aysatu li la métti. Oh. métti na ma. mais Adama Faye bi ma ko njëkkee dégg. Mhm. mu toog ak Pape ngay njaay faram fàcce. waaw c'est là ne Adama Faye est en mission. C'est conviction discours bi mu euh, émission Papa émission bi daf ko defal Ousmane Sonko. mais quand dégg ko démb défendre Sonko. c'est-à-dire émission boobu démb démb moo muy dama ci fausse parce que dans les normes. mais au pouvoir. quelle trahison. ñii dañoo au pouvoir kan lañ njëkk a convoqué. brigade recherche ci wàllu suuf. moom napp ko kan la ñu convoqué waat. yàq famille waaw xam na. waaw léegi Adama mooy nooy bopp bi mooy. mooy mooy mooy baaroola famille bi. léegi Adama Faye yaayu Marème fay Sall. yow yaa tax ñu woo ko. waaw li Sénégal yëpp nakarlu ko ba ba procureur de bi ndar bi ñëpp tàcc ko. mu metti ma ci ci jëf ju rafet bi ba ba ba. Macky Sall keroog muy wax wax na ko ndax nee na. non dama wax ne pour laal maa tax ñu pour convoquer sama koro. waaw mais yaayu yoonam nekk si kenn xamu ko wul ci dul sell baax taalibe wallaay ak njabootam wallaay mais ñu convoqué ko ñëpp jóg ñoom Alioune Tine ñëpp jóg kenn musul am loolu musul am ci àddina lépp jóg ndax Adama Faye ndax Adama Faye mii waaw léegi bi loolu amee procureur bi ci wàllu boppam sax a été un procureur waaw moo wax ni ni ci biir procureur ñu leen di ñaan parfois njekk mhm. procureur bi daf ne kii jarul muy déplacé man dinaa ñëw bëgg ko audition ñëpp tàccu wala yow Adama Faye yow hmm. yaa tax loolu am. sa yaay sa propre yaay. ñii pouvoir bii bu convoqué sa yaay yow. yow yaa Ousmane Sonko waroo taxaw fenn di ko tagg wala nga koy waxal lu rafet. waroo sa toog Ousmane Sonko bay wax ak moom téléphone. parce que nit ku ne yaayam la man ni ma ah. mel ci sama yaay moo tax may wax. man mii. sa yaay. mais ki amul valeur. pour première fois de l'histoire mag mu doy na sa yaay. sa yaay. <laughs> ay nit woo ko. ci sa dossier mu ko. ndax yow. ngel bi du daan ak nit ñooñu. nga taxaw naan da ngay wax tarafetal ay nit ci lu rafet ci noonu. go kii kay du parce que ñun kérok ba mu amé ñun ñi mu jurul daf ñoo metti waaye yow Adama fay yow nga ne da nga bëgg a nekk député yow mi nga xam ni mënoo denc secret. mënoo denc secret amoo benn sutura yow miy toog di. amoo orma d'état amoo orma. waaw mais nga ne da ngay laaj lis. amoo nawale amoo kilifa. amoo ah, sutura amoo ngor. non ah. non dama ni lii Adama fay def nii. Mm-hmm. non histoire da koy bind. non da koy bind. Ah, parce que en caractère. xam nga lu tax Macky mënul mënul blessé Macky Sall. déedéet blessé ko doo ko yàqal nag dara. parce que mënu ko blessé. xam nga lu tax mënul blessé Macky Sall. mooy Adama Faye ci barke Macky Sall la existé. ko blessé mënul blessé Marème fay Sall. déedéet parce que Marème fay Sall histoire bind na ko ba pare. waaw ah, sëykat ba am ndam ndamal. c'est-à-dire. xam nga ah, Mansour fay ñëpp dañ ne ba muy ba muy ba muy ba ñu ndar ba mu fay def mm. siège di jënd oto di def nangam nangam mm. mu ngi accompagner woon Macky mm. Sall ca boobu nekkagul dara mm-hmm. looloo tax mu am légitimité ndar waa léegi Marème Faye Sall ñëw nekk première daam yow ñit ñi bu ñu la xamee lan la ñuy wax rakku Marème fay Sall mm-hmm. c'est parce que Marème Faye Sall moo sëyeeg président de la République yow président de la République dàllam sax fu mu taxaw da nga ko war a yëkkati tey waaw ah, boo dee gor waaw mais nga taxaw ci digg mu nekk président de la république nga kële nekk premier ministre yow nga taxaw nga ne yow yow mi nga xam da ngay teg liste ne da ngay politique. ba pare yaay wax secret d'état yooyu yow. <laughs> ba pare nga jàkkaarloo nit ñi di leen laaj seen i voix. mais dama xamul ko war a non non dañ ko war a woo. non xam nga lu tax mais dañ ko war a woo. dañ ko war a woo. ne ko yu fekkee ndax. nag non non dañ ko war a convoqué parce que moom kii ñu war a convoqué la. parce que. loolu dëgg am na yoon non dafa am lu mu wax lu lu walum jaay soufam bobu liko lié ak mamboy diaw ba mu metti ko ba mu tuddu ko c'est parce que kon moom affaire corruption bobu ak corruption boobu la doon dundee tout ça bi dañu jox mamboy diaw Diao bëgg wax na né né jël sama xaalis wa légui entreprise yoy nga amone ñun de ñu ngi Sénégal hmm. dégg fi capitaine yi jëb fi ñëpp mais musuñu la xam déedéet kenn xamul ba paré yow fi nga tabax fi hmm. ci bir ci ci ki bi Sénégal yépp dañ ko doon ñaawlu ñit hmm. ñi naan pourquoi nga wara am fi mëna am fi ay palais pourquoi nga mëna am fi lépp waaye loolu ci reñu président Macky Sall ba bi muy waaj a jeexal seetlu nañu comme li nga wax xaritam doomu ndayam Ibrahima Pouy bu ko mhm. posé question boobu ndax mhm. xarit doo ndax Ibrahima Pouy bu jàkkaaroo mu ne ko ban problème nga am ak Macky mhm. parce que loolu war na koo jaaxal avec tristesse la ko wax wax loolu na koo jaaxal léegi yow Adama fay nga ba nga ne da ngay laaj nit ñi fausse gis nga liste yi kaawu Adama fay ak kaawu Ablaye Sylla man seen liste dafa ma jaaxal ak Racine si parce que c'est Racine ça xam nga convoqué wuñ ko. mais. mais lan lay uti ji assemblée nationale. voilà voilà merci Abou. c'est-à-dire mon mon cas mooy lan lay uti assemblée nationale. Mm-hmm. parce que secteur privé ba nga nekk hôtellerie bi nga nekk mbir coow ya fa nekk li fa mm-hmm. nekk yëpp yow xam ne amoo jotu assemblée nationale parce que secteur privé bi ak la nga def IPRES ak temps boobu yow looy doyee loolu fausse liste la de sécurité sociale na yow li nga gàddu yëpp looy mm-hmm. doyee député même mairie bi sax dañ lay laaj loo koy doyee parce que secteur privé bi li nga fi yàgg hôtel méridien beeg lépp lépp système hôtellerie bi dara doxatul te boobu ba léegi fi di exil kenn su gis na émission wala dara mais ben instant ñun dañuy japp ne ni kuy outil kuy uti immunité nga wala dafa am leneen loy loy député bi da ko soxla pour après pour am koko yak après koko yak ah, on comprend pas et on pose des questions Ablaye Sylla tamit Ablaye Sylla yow ñu ñu tonga tonga non Ablaye Sylla on comprend pas ce liste parce que parce que tay bala ngay sauver ji ay guinéen ba naan da leen di may ay ah, mais ITV ITV ah. di souffrir cinq mois bu dee da nga parlementaire bu dee danga nga bëgg nekk parlementaire ne danga bëgg a sauver ji askan wi mais entreprise boo xam ne parmi les meilleures entreprises ah. ay ay bi ëpp gënoon am audience ci ci côté qualité ah. ay sénégalais nekk fa cinq mois yow nga indi ay problème am fa ñu tudd la ci même bu dee nii sax yow kenn xamul problème nu mu def nu ñu la tooñee waroo seetaan entreprise boobu kuy ku ku ne da nga bëgg a hmm. defar réew wala da nga seetaan mu fay au moins nga jóg taxaw beneen bi si topp mooy coow yiñ la dégg ci côté privé beeg yëpp yëpp mais loolu moy ay question yo xamni mom nga wara taxaw répondre yëfu or bi la top yow yi waaw c'est-à-dire <laughs> c'est des listes yo xamni ni c'est pare ba pare Abdoulaye cela ne fait pas de campagne yow gisoon mu campagne dem dugg moo tax benn moment dañu wax non man ay négu ñax lay tok di waxtaan loolu personnellement personnellement <laughs> dañu wax man man je l'ai vu faire le tour des marabouts et les cités religieuses kese taxawaalu dem ki dafa am lu muy melni ni yaa doon def voilà ko daan def bu njëkk ñu ñu fay la en retour parce que man bi muy def loolu personnellement bi muy def loolu taxaw naa fep affaire juuti lay def au début bi ma gisee mu nek chef entreprise di dem Tivaouane di mhm. dem Touba dem feneen di dem Rabdou Sëñ Fall dama ko félicité mhm. bi ñuy wax ci C50 bi dama ne noo bàyyi leen jàmbur privé la waaye ñu convoqué la ci coowal politique ci coow ñu woo la jiiñ la ay mbir yeewu jékki-jékki gis la nga créé liste mais sénégalais yi dañu lay poser question ne la ci sa campagne da nga ñu waroon répondre mhm. conférence de presse ci lan moo xew jëm ñaajo lan moo xew ci affaire or bi ñu lay wax lan mhm. moo xew aussi tamit ba tax ah, ñu euh, affaire mais lan moo xew tamit ITV ITV aussi il y a des pertes d'emploi des jeunes tey war nga mën a sacrifier li nga yor yëpp ah, jox ko ITV parce que pour ITV sauver ITV kan moo mën a dem assemblée ne day waxal askan wi te ITV di daanu gars yi nekk ci ay problème nekk ci ay difficulté ba pare ngay wër Sénégal naan damaa bëgg pour defar réew mi te benn secteur privé bi ngay am c'est-à-dire problème mu ITV il faut moom yaa waroon taxaw def don de soi boo mënee tabax ay ay ay xabru defar lépp defar lépp mais ay entreprise mm-hmm. ay revenu nit ñi ne fa yow bu dee ne actionnaire nga ci sax ma ne man dinaa jël sama alal yëpp sauver ko entreprise wallaay wallaay mm-hmm. donc list yooyu jaaxal na ma trop mm-hmm. ba ci listu Adama Faye bii waaye yow Adama Faye dañ laa convoqué ñaari yoon gendarmerie convoqué la police. tudd ci ay mbir nga dem jox médiation. dégguñu lu tax nga génn ci loolu waruñu la woon bàyyi sax ngay dem élection. kaa waruñu la woon bàyyi nga dem élection. c'est ça tamit ña dem gi nga génn dem élection. y' a pas quelque chose est-ce que nekkul loolu nga bëgg. remplacer politique la le. fayoo ko parce que 47 listes yi li tax parrainage amul piège la. piège bu mag. li tax parrainage amul parce que gars waruñu woon mën a yàkkamti ba mu ñu parrainage parce que 47 tax ñuy xew. donc pour man 45 listes yooyu ñi tax ñu ibbi ñu boobu. Mm. pour ibbi liste yooyu yëpp jàll ak caution. c'est parce que am nañu lu ci ne. man loolu laa parce que yow en pleine campagne Adama Faye nga war a dem wax ak askan wi nga ne da toog di yàq sa fan. di woteel ne ñoo nekk ci kanam. nga toog ne wu li nga def lu ñaaw la. te yow nga wax lépp. te yow sa mag bu jigéen non defal ndànk yow mënuñu ñu jàpp sa yaay. Mm-hmm. woo ko ci sa mbir beneen bi sa sœur nit taxaw ci turu Pastef saaga ko. Sénégal yëpp jéem défendre sa sœur. te sa sœur boobu tax ñu exister defoo bruit waxoo ci oh. génnoo ci. kon nag ah alal de jaral na la nag deret ëpp alal. alal la gënal deret. te li nga def nii tey mm. jàppal nga ni sénégalais bu la bëggoon sénégalais bu la nawoon sénégalais bu la ah. fonkoon sénégalais bu la bàyyi woon xel sénégalais bu la doon xool mm. ay photo nga taf ko sa buntu kër sëñ ba sénégalais yëpp démb bi nga jaaree fii jàppal nga wàcc nga ci suuf parce que ñun sénégalais yëpp ñoo taxawoon di défendre sa yaay bi ñu ko mm-hmm. convoqué ñun sénégalais yëpp ñoo taxawoon défendre sa sœur bi tax nga existé mm-hmm. ñun sénégalais yëpp ñoo taxawoon jàkkaarloog ñi ñi daan ñi daan jàkkaarloog yow mm-hmm. yëgal ni ni li nga def nii ñaaw na trop bu dee ni ni lii ngay bëgg a neexalee Ousmane Sonko. Mhm. su dee lii nga bëgg a defee sa trans transhumance indirecte su dee lii nga ko bëgg defee ñaaw na ba pare. Mhm. liste bi ngay def nag di campagne noo jaratul ngay siw nga ba pare. Ah, jaratul ngay continuer campagne 7 jours yi. Euh, Abou pour jeexal foofu rek parce que.